lu ñuy war a ñaanal way jur yi de laa doon laa doon laaj ñi faatu damaa gis lu gën a bari ay xul uwa la ñuy jàng ah, mu bëggoon a ba xam ne ba xam xul uwa yooyu kon lu toll noonu lan ci war a jàng lu ci gën daal bi ci des mooy benn hadis bu doon wax naan law lam tus ni bu fekkoon tey du ngeen ma moy day danaa fi indi ñeneen jaam ñoo xam dañu may mooy ma di leen jéggal boobu nag moom laa mustaxam moom laa bëggoon ku ma ko jàngal bu njëkk bi mbirum euh, néew yi ñuy ñaanal lixlaas ñaanal na néew ci gën a bari gannaaw faatiha fukk ak benn dafa yomb te bari tuyaaba tuyaaba ji nga xam ne moom mooy jëriñ ka nga xam ne moom lañ koy ñaanal leeral bàmmeelam yaatal ko yokk xéewalam loolu lay jëriñ bu fekkee ku fi soogaa jóge la bismillahi rahmaani rahiim yi nga yem ci jàng ñeen fukki lixlaas daañu ko def salaatu ala nabi it am na benn jëmm bu ma sa romb muy nit ku baax mu romb ay armel am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen cay mbugal mu def ñaar fukki salaatu ala nabi yéeneel leen ko ba mu fa rombaatee fekk ñañ doon mbugal ñëpp ñu bàyyi leen ki nga kañ ci gënoon mbugal mbugalatuñ ko moom la laaj xamul nag ki ko ñaanal mu ne nit ku nitu yàlla ku baax a fi jaar ba ma ñaanal ba mu ñaanal waa bàmmeel yi ñaar fukki lixlaas ñu jéggal ñépp sama wàll la ma ci am moom ma tax a texe ba kenn mbugalatuma kon salaatu ala bi bokk na ci yi ñaanal néew naka noonu itam ayatul kursi yi juróom-ñaaram daañ ko ñaanal néew daañu ñaanal néew juróom-ñaari inna anzalnaahu juróom-ñaari li ilaafi quraysin yi ñu mën a ñaanal néew bari na daañu jàngal alquran néew ulama yi am na ci ñoo xam ne littéraliste maanaam xarfi yoon yi ah, neeñu gisuñu ko toxaluñu ko fenn lu dul li ñu yolamal muy jàng suratu yaasin ci bopp kan ci kuy xar-xarle ku nekk ci sukuraat ñu jàng suratu yaasin wala ñuy wax di sikkat laa ilaha illallah ci ci wetam ngir mu dégg ko xelam dem ci wala mu toppandoo la waaye doone ko waxal laa ilaha illallah ndax ki nga xam ne mu ngi nekk sukuraat iblis day soppiku ñaari jëmm kii mel ni ndeyam kii mel ni baayam ñu naan ko waxal ne dee naa ci diine yéexoot wala diine nasaraan bu fekkee ne nee leen du ko wax nag fekk yow mu ko naan waxal laa ilaha illa dañu defe ne yow lay wax ndax yow doo gis li muy gis wala li muy dégg yow doo ko dégg ndax yaa ngi ci àdduna bi moom mu ngi génn adduna euh, bu ko defee ñu ñaaw njort ci moom te ñaaw njort boobu baaxul ci moom moo tax bugguñu muy ñaaw njort ci boppam bugguñu ñeneen ñi di ñaaw njort ci ñoom ñi nga xam ne dañu wax ne surtout yaasin rek lañuy ñuy yolamal ak laa ilaha illallah ci wetu bopp ku fi jóge surtout yaasin nit ba tey dañ ko waaye alquran jëpp la ñu mën a ñaanal néew daañu ko wàcce néew kaamil yéene ko yool ba loolu lu saxa sax la lu am la itam ñu ko weddi it seen loi guddul rek waaye kon duñ ko weddi ndax loo ama am la lu dëggu la di ñaanal néew kon noonu la demee naka noonu ñaanal ba euh, bépp néew boo xam ne benn da nga koo xam wala mos la defal lu baax nga di ko fay njëkk wala ngay ñaanal rek néew yëpp yi wala ngay ñaanal néew yi nga xam ne ameel nga leen xaq yëpp rek pour xaq ji dañ ak loolu ñaareelu laaj bi moo doon noonu suñu borom ah, maanaam xaddis bi euh, suñu borom wa xaddisul qudsi xadisul qudsi xadisul euh, sharif li ñu wute comme xadisul qudsi waxi suñ borom la waaye yonent bi ci ay waxinam moo koy waxal boppam loolu la wute alquran nag moom yonent bi soppiwu ci dara yokku ci xaraf wàññi ko ci xaraf noonu lañ ko ko waxee noonu la ko indee xadis bu qudsi nag waxi yàlla la waaye yonent bi moo koy wax alayhi salaatu wasalaam bu fekkoonte ne du ngeen ma mooy ma jële leen fi indi fi ñuy mooy ñu may mooy di ma balu ma di leen jéggal suñ borom turam yi tur bu ci nekk dafa am fu mu aju ndax xafaar jéggalaa kon mënu la aju ci lu dul bàkkaar ki muy ki tooñ ñi di ko jéggal te ni nga xamee ne suñu borom turam yépp ak maanaam sifaatam meloom yépp bu ci nekk dafa am lu mu sàkku loo xam ne ci lay jëf ndax suñu borom ba mu sàkkee malaaka malaaka ko waru la mooy mënu koo mooy foofa xafaar du fa feeñ dégg nga te it ñooñu mënuñoo nekk euh, xalifatullahi fil ardi mënuñoo dëkk ci suuf ndax suuf ñi fi war a dëkk dañuy war a jëfandikoo suuf di ci bay di ci dox te xam nga malaayika aajowul dox ci suuf mën na naaw aajowul mbay ndax du lekk du naan euh, ki nga xam ne moo tax suñu borom bind suuf si mu war fee dëkk war a jëriñoo li fi ne ngir xam xéewalu yàlla xam kàttanam eh, di ko mooy xam njëggalam xam yërmandeem muy bale kooku doomu aadama dong la moo tax bi way qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu atajalu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni a'lamu maa laa ta'lamuun wa 'allama aadama al-asmaa'a kullahaa thumma 'aradahum 'alaa al-malaa'ikati faqaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa te sa bu gudd la mooy bi suñu borom xamalee malaayika yi ne leen danaa bind koo xam ne moo may euh, taxawal moo may représenté moo may wuutu ci suuf bind nit malaaka mënul wuutu suñu borom ci suuf ndax du xam xéewal yi mu fi def ak njëgal gi ak it li nga xam ne moom la suñu borom dugal ci biir suuf si te ñu war koo xam mu mel ne bato boo xam ne dafa teddee woon ci ndakaar jëm Indochine ñu xam ñaata nit a ci nekk ñaataa ciy juddu fi mu ba muy àgg foofa lu ñuy soxlawoo muy euh, tawat sàngam dana am nangam a koy faj lépp la koy faj lépp ñu def ko ci lépp fépp fu ñu toll lu fay xew luy faj soj ak loo xam ne bi bis bu géej gi seddee ba sedd wala bis boo xam ne ngelaw li bari na wala bu tàngaayu yu métti lu ñu aajowoo ñu def ko ci suuf si noonu la mel ba nga xam ne si borom wàcce na fi aadama yi mu fi indi yëpp te bu doon bu doon malaayka yi kon ñu mën a génne duñ génne or bi ndax duñ ko aajowoo duñ xam lu muy jëriñ duñ xam valeur am duñ mën a génne weñ gu ñu ba mën ci liggéey ay oto ay saxaar ay avion duñ mën a dindi safara ba mën ci togg mën ci leeral duñu mën a itam euh, essence bi duñ ko xam ba di mën dawal ci oto wala ñuy dawal avion yi nga xam ne suñu borom def na ko ki nga xam ne daal moo war a wuutu suñu borom ci suuf si day nekk koo xam ne lépp lu suñu suñu borom bindoon am fab na ca loola boole ko ci moom muy nit nga xam ne boole na li ci baahima ak li ci malaayika ak li ci seytaane ak li ci rab yépp li ci xaj li ci bukki li ci gaynde li ci jaan li ci lëkk li ci lépp ngi ci biir nit ñi wa ma min dabbatin fi lardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum ma faratna fil kitabi min shay'in waxtaan nañ ko ay yoon ni nga xamee ni nit ñi ay xeeti xeet lañu ñii nit nga xam ne ji koy janax la ñu amee yàq rek fu ñu toll yàq lu ñu fekk da ngay denc sa xaalis wala nga denc sa téere boo gën a fonk janax ji ñëw di ko kaj kaj di ko kaj kaj di ko kaj kaj ba nga xam ne soo ñëwee sa soo ko yëkkatee sa xol bi day tàng dootoo ko jëriñoo nga sànni ñii nit jikkoy wund la ñu amee seen njëriñal bopp rek fu ñu toog ñu ngay seet lu ñu jëriñoo waaye duñ defal nit ki dara dara dara dara defe dañ na njëriñ daal ci ñoom dafa day gudd bari na rabi àll yëpp ak yooyu la kon borom dafa